ba ci jàng ba tey koor gi day dokk nee nañu sax boo galaxndikoo bala ngaa wadd say lor da ngay bàyyi ba wóor la ne dara di sutu ci lu bokk ca ndox ma wa sawmu yow mi xarafata ak woor bisub arafa li xayril xaaj ji ñel kudu aji aj bisu arafa ak yow mu tarwiya bisu arafa mooy juróom-ñeenteel ci weeru tabaski yow mu tarwiya mooy bisub juróom-ñetteel ci weeru tabaski sopp nañ bu fekkee nekkoo di aj màkka nga woor leen boo dee aj nag moom dañuy bañ boo leen wooree xaw a néew doole ba doo mën a taxaw ca la ngay def na nga ca war a taxawee wa yow mi taasuxaa ak bisub taasuxaa mooy bisub juróom-ñeenteel ci weeru tamxarit wa xaasura ak xaasura mooy bisu fukkeel ci weeru tamxarit ba tey sopp nañ weeru tamxarit ba àggee ci bisu juróom-ñeenteel ba nga woor ko bisu fukkeel ba itam nga woor ko su fekkee nag nan laa boole yaar yëpp benn ba rek na nar a woor kon say boo woor bisu fukkeel ba ndax nee nañu moo ëpp tuyaaba waaye nag boo mënee boole woor ñaar ñëpp moo gën wa talaasati ayyaamin ak ñetti fan min kulli shahrin ci wépp weer sopp nañu weer wu ne nga woor ci ñetti fan nee nañu alimaam Maalik moom da daan woor fukk yi ne ba ci njëkk mel ne bu ko wóoree ne weer yu teroon na tey mu daal di koy woor ko xam nga tey moo njëkk ci fukk yu njëkk yi soo amee fukk ak benn bu fukk ak benneele bis ba nekk fukk ak benneel mu daal di koy woor ndax moo njëkk ca fukk yooyu ci digg ba bu amee ñaar fukk ak benn itam daal di woor booba muy bis ba njëkk ca fukk yi ca mujj teewul nag moom ñetti fan ñoo woor rek mu baax waxtaan mu teg ci wala tax tas su du jagoo bi ayyaami ca fan ya albiidi ya di way leer ay guddi al ayyaam albiid mooy fukk ak ñett fukk ak ñeent fukk ak juróom yooyu duñ doog ne ñoom rek ngay woor mu door a baax déedéet ñetti fan ñoo woor rek ci weer yi mu daal di baax wala yukrahu deful si saw mu yawmil jumuhati woor bisub ajjuma mun faridan mbir mu muy aji beru mbir muy aji wéet lay firi waaye mooy beru maanaam nga woor bisu ajjuma kese wóoroo ba ko jiitu muy alxames wóoroo ba ko topp muy nër laa wóor ba ko topp muy gaaw addis ba da koo aaye woon waaye nag yoonu Maalik am nañu ko taawili ñoom ba bañ ñu ko wa yukrahu def na sib dawqul milhi mos xorom wa majjuhu ak mu yàbbeem maanaam boo wooree ngay mos ba xam saf na xoromam déet wala saf na suukaram déet xam na ngay mos daal di yàbbi loolu sib nañ ko ndax dañuy bañ nga fàtte ko far ko wan mbaa mu rëtt la far jàll bu ko defee sa koor dog loolu moo tax kon nga moytu woor ba noppi di mos ba xam loola saf na xorom mbaa saf na suukar mbaa dara yooyu daal ab naa def wa muqaddamaatu jimaahi ak yéen ñi jiital jëkk booloo kal xublati ni ki foon wala mubasharit ak jonjoo ci yaram wa tafakkuri ak xalaat wa nazari ak xool ba al mustadaami bari buñu saxal wal mulaaxabati ak foxante in xolimat ndeem xameef na asalaamatu mucc ga ci génnu dara nee na ba tey boo wooree te wóor na la ne boo fóonante ak ka ngay séyal mbaa nga jonjonteeg moom ci yaram mbaa nga xalaat ca moom mbaa nga koy xool xool bu yàgg xam nga ne lu tax dara dara génn ci yow loolu dalaa wóor kon dañ koy sib rek yem ci ndax nga nekkan ci lu am njëriñ sa digganteeg sa borom moo gën loola waaye na degam xam nga ne yow boo ko defee dara du génn ci yow du mës yu du mën yu kon sib rek lay doon wa illaa bu fekkee nag xamuñu ca mucc googee nag fay xarumu kon dana araam xaalihi ci moom daalika loolee su fekkee wóoluwul sa bopp nag ci boo defee yooyu mën naa am mas yu génn ci yow mbaa man yu génn ci yow kon day araam nga def lu mel noonu te it su mas yu génnee faaw nga war a fay su man yu génnee nga war a fay ba noppi def alamaan boole ci wala yuftiru mu sañ a dog asaa yi mu aji woor ja al mutatawixu ja aji coobarewu li hazimatin ngir dogu keneen aw xayriha baalutul moom dana boo wooree koor goo xam ne yaa ko coobarewu ngir yàlla am ku dogu ceew ne la faaw nga dog sa koor gi ni ki mu toggal la añ defaral la xéewal daal defe ne yow wóoroo nga ñëw nag woor koor goo xam ne yaa ko coobarewu waat ne maanaam mu dogu ci ne mu daal dogu ci yow ne la faaw rek da nga dog sa koor gi su boobaa itam nee na du tax nga sañ a dog sa koor googee ndax boo ci xasee dugg rek soppiku na waru gaaf kon boo xasee woor koor coobarewu bul nangu dara tax nga dog ko waaye na xala fa ndeem waat na xale yi ci moom bit talaaxi ci tase ak salaas yi mu di ñett aw xisqi wala ak goreel xon ni sa kon teeñu loof ko maanaam kon ñu tegg ngi ñëm nee na bu fekkoon na ngaa woor koor coobarewu am ku waat ci yàlla ne su dugul sa koor gi moom soxnaam fase na ñetti yoon wala ab jaamam gore na ci jamono yi jaam amee loolu tax nga sañ a dog sa koor da ngay wéy ci sa koor rek soxnaam fase ñetti fase bu dee jaam ba jaam ba gore waaye loolee mu waat du tax nga sañ a dog sa koor illaa an yakuna ndare bu dafa nekk ahada waalidayhi di kenn ci yaari waajuram aw cheikhaho wala mu di ab sëriñam fa innahu naka moom yuqtihoo dana ko topp ida kaana dem nekk na xalaa wachi rafati ci anamu ñëwante li idaamati saw bi ngir saxalu kooram nga lu may nag ki nga xam ne moo waat ci yow ne la faaw nga dog day sa sëriñ bi nga xam ne moom nga wala renteel ci yoonu yàlla mu la cay teete mbaa mi kenn ci sa ñaari waajur sa ndey mbaa sa baay ñu yërëm la ci koor gi nga xam ne moom nga saxoo ba dog ci yow ne la faaw da nga dog su boobaa kon da nga leen topp rek daal dog ndax ndegam kooru ngàtt nga rek la sooy boo dog kon ndax topp leen ca loola wa man aftara ku dog fii nahaari ramadaan ci bëccëg ramadaan xam dan ci ak tey aw sahwan wala ci njuumte wajaba kon war a xale yi ci moom qadaahu fayam nga maanaam koor goo xam ne daal moom koor gu war la soo ko dogee rek faaw nga war koo fay moo xam nag yaa tey dogg moo xam teyoo ko xanaa kay am ca bàkkaar ak bañ ca am bàkkaar kay la ñuy wax ak alamaan war la ak alamaan bañ laa war waaye nag koor gi koor gu war la moom soo ko dogee rek war koo fay moo xam dogga ci tay la moo xam dogga ci ñàkk tay la a tax mu teg ci waye samu dana bàkkaaru inkaara ndem nekk na xam dan dig tay ramadaan dafa màgg lool nga war ba ci biir nag nga dog te tey ko moom bàkkaar bu réeréy la du tee na nga war koo fay ba noppi alamaan war la ja muy wa tey bu dana war a xale yi ci moom al kafaaratu kafaara xam na alamaan boo war a def bi ahadi salaasati asiyaa ci kenn ci yett yëf xala tax yi di ci kaw tànnloo am na yett yoo xam ne moom lañ lay tànnloo la ci neex rek def waxee ñoom imma ithaam sittina benn leel juróom benn fukk miskinan ci ay miskin kullu waahidin kenn ku ne mudd mudd lay doon bi mudd yi ci mudd yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax wate moom afdalu moo gën nga njëkk mooy nee na lele lele ga juróom benn fukki miskin ngay leel te kenn ku ne nga jox ko mudd mudd na mën nga koo jàppi liibar rek kon kenn ku ne nga jox ko liibar fekk ñoom ñu juróom benn fukk loolu moo gën ci boo dogee ci ramadaan te tey ko ñu wax la nga alamaan boo defee loolu moo gën aw siyaamu shahrayni wala woor ñaari weer mutataabi'ayni yu di aju toftaloo kooku nag moom moo ci gën a metti mooy benn fan boo dog ci weeru koor te tey ko rek daldi woor yaari weer yu susaloo muy sa alamaan nga xam ne boo wooroon yaari weer yi ba mu des benn fan nga dog it da ngay tàmbaliwaat rek faaw de yàqu te bu fekkee da nga caa amee ay fan yi fan yoo war a defal alamaan te di ko def koor yaari weer yu ne day susaloo nga xam ne fan bii moom boo koy defal yaari weeram yaari weeram daa war a susaloo bu la neexee nag bu weer yooyu jeexee maanaam bu yaari weer yooyu jeexee nga noppalu door a tàmbalil fan ba ca des waaye bis bu nekk moom yaari weeram daa war a susaloo aw xit ku raqabat wala goreelub jaam muminat bu di aji gëm kaamilat bu di aji mat xëyri mu lafaqatin bopp lu ñu tàppe salimatin bu di aji mucc laa tustaxaqu mu def ko yeyoo di wàcc ci genn anam ba tey bu dee jamonoy jaam amee mën ngaa goreel ab jaam muy sa alamaan ci dog nga dog ci weeru ramadan te tey ko waaye jaam ba day nekk ab julit du nekk yéefar day nekk jaam bu sotti du nekk buñ goreel lennam bàyyi lennam doo mën a tàppe itam tàppe mooy lu mel ne nga goreel genn wàllu jaam woor wenn weer nga xam ne dangaa jël wenn weer woor ko goreel genn wàllu jaam xam ne ngaa bëgg a tàppe yaari alamaan déedéet leen rek nga cay def mu beru waaye doolu mën a boole te itam jaam ba daa war a mucc ci sépp sikk su koy tey doy lu jublu ci salimatin lim daanee ne laa tustaxaq du wàcc nag mooy yaa ko moom moom gu wér wér nga xam ne gannaaw ba kenn mënta wax ci yoon ba ne maa ko moom ba nangoo ko ci say loxo fekkee ne kenn mën naa wax ci yoon ne moo ko moom ba nangoo ko ci say loxo rek day mel ne kon ci dëgg-dëgg du sab jaam jaamu kookaa kon day aajoo nga moom ko moom gu wér a wér am na yent yoo xam ne ñooy waral alamaan bii nga tudd léegi ba ci jëkk mooy moom góor ki nga xam ne mu kàllaf la mu war ba noppi joteeg jigéen joo xam ne mënees naa joteeg moom doon ci sax kam joteel ci at gone la waaye jëmb ja mënees naa joteeg moom rek su joteeg moom daal di war a fay alamaan bii ñaareel ba mooy lekk ci gimiñam wala naan ci gimiñam te mu dem ba àgg ca biir ba ndaxam sax lekk ga ak naan nga bu demoon ba ca bëli ga koor gi moom faaw des na ko fay waaye alamaan ga nag moom bala ko caa war lekk ga mu lekk jaar ca gimiñ ga mbaa naan nga jaar ci gimiñ ga te àgg ba ca biir ba nga xam ne kon lu jaare ca nopp ba mbaa bët ya du tax mu am alamaan mu awee ca gimiñ ga muy lekk muy naan te jàll ba ca biir ba bu yemee ca bëli ga rek mu daal di koy yàbbi kon fay ga moom dana ko war waaye alamaan du ko ca war ñetteel bi mooy mu yéene ba noppi wëlbatiku wacc yéene ji ci gannaaw ba fajar fenkee gannaaw bu fasee yéene ji ba noppi la dale ci fajar fenk bi jant gi so loolu mooy diiru koor gi saa yu ca wàccee yéene ji rek ne man maa yéene woon yéeneetuma moo xam wax na ko mu waxam waxu ko waaye fas na ko ci xol bi daal bàyyi yéene ja kon dana war a def alamaan bii ñeenteel bi nag mooy mu tey ko ba noppi génne man yu nga takkaale foofu ne gént rek ci biir koor gi maanaam nit ki bëccëg bi mu nelaw rek gént génne man yu dara waru ca fay du ca war alamaan du ca war waaye nag bu ko tayee ba noppi nag génne mën yu donte ci xalaat bu yàgg yàgg la mbaa xool xool bu yàgg la te fekk na moo xamal na ci boppam ne naka jekk kat lay aadaam moom mooy bu xalaatee mbaa mu xool mu yàgg rek faaw mën yu génn mu tey ko daal def yooyu nag ba tey alamaan dana ko ca war su fekkoon ne nag moom bu masaa di xalaat mbaa muy xool it lu mu yàgg yàgg dara du génn bi yoon la tombeet nag dara génn kon alamaan du ko ca war albaabu lii mooy bunt bi alxaamisu bi ak juróomeel fil i'tikaaf ci lixtikaaf wa xaqiqatuhu dëgg-dëggam allubsu mooy sax fil masjidi ci jàkka ja lil xibaadati ngir jaamu yàlla xaalaa wacc xin ci ak anam maxsuusin guddi gu ñu jagleel mooy guddi gu ñu ràññeel maanaam daal lixtikaaf daa bokk ci xeeti jaamu yàlla yu baax yi ndax mooy nga beru ci jàkka ja taqoo xeeti jaamu yàlla yi setal xol mel ni jàng alquran ak tudd yàlla ak julli waaw saxoo loolu ànd ak koor bëccëg bi loolu moo tudd litikaaf wa aqalluhu gën jaa néewam yow mun moo di ab bëccëg wala leen ak guddi moom nag lu mu néew néew mat genn guddi ak benn bëccëg ndax da nga mënta ñàkk ànd ak koor te koor gi ci guddi lañ koy yéenee kon guddi ga ca la kon bëccëg bi tam ca ngay woor koor gi mënu cee ñàkk kon lu néew néew mat benn fan waa ak ma lu ko gën jaamatam xasiratu ayyaamin mooy fukki fan la ci gën nag mooy lum néew néew mat fukki fan wax woo moom min nawaafil xayri bokk na ci naafila yiw yi bokk na ci xeeti jaamu yàlla yi nga xam ne kooku da koy def mel ne kuy nuru nuru lu malaaka yu baax ya ci jeexal sa waxtu ci jaamu yàlla ak fekk sa bakkan ci ak téye sa bakkan bañ a jege xeeti bànneex yi nga xam ne fu mu toll ma ngay xabtalu jëm ca wala xoo ñeel na ko arkaanu ay ponk arbaxat ñu di yent moom nag am na ñeenti ponk moom lixtikaaf al awalu bu jëkk bi al mu'takifu moo di aji lixtikaaf ja jëmu ja lixtikaaf mooy benn ba waxoo moom kullu muslimin mooy bépp jullit mu may yisin bi aji xàmmee kon fa yasixu dana wér minal marati ci jigéen wa sabi minal marati wa sabi ak gone war raqiq akub jaam bépp jullit boo xam ne am na xàmmee rek xam na la mooy jaamu yàlla rek mën naa lixtikaaf doonte ab jaam la mbaa doonte gone la ak doonte jigéen la du tee rek mën na ko waaye nag bu dee jaam ba dee aajowoo sang ba may ko ci ndigal bu dee jigéen ju am borom kër ba tey day aajowoo jëkkër ja may ko ci ndigal attaani ñaareel bi asow mu mooy koor ga fala yasihu du wér bi doon yi ci dul koor lixtikaaf faaw da ngay woor bëccëg ba waaye boo saxee jàkka ja di jaamu yàlla te doo woor bëccëg ba du ko tax a doon lixtikaaf ak taali su ñetteel bi almuxtakafu mooy lixtikaafu kaay ba fii ca moom almuxtakafu mooy béréb ba ñu lixtikaaf yi fii ca moom waxoo moom nag almasjidu moo di jàkka fala yasixu du wér fii xëyri ci lu dul jàkka ñetteel bi mooy da nga koy defee ci jàkka te muy jàkka joo xam ne waaxu sàkk lay doon doo ko defee ci sa boutique wala ci sa néeg wa nag mbaa jàkka joo xam ne yaa ko ber rek foofa du kum neex ñëw jaamu yàlla déedéet da nga koy defee jàkka joo xam ne waaxu sàkk la ku ñëw rek mën a jaamu yàlla fala yasihu du wér fii xëyri yi ci dul jàkka arraabihu ñeenteel bi al istimraaru moo di sax ala xamalin ci jëf maxsuus ñi di juñ ràññeel na xibaadati ci jaamu yàlla wax wate moom asalaatu mooy julli wa xiraatul quraan yi ak jàng al quraan wa dikrullahi ak tudd yàlla taala kawe na nee na ñeenteel ba mooy boo nekkee ci jàkka ja di woor bëccëg bi am na jaamu yàlla goo xam ne itam moom lañ bëgg nga taxoo ko moo gën ci xeeti jaamu yàlla yi booy listikaaf te mooy julli ak jàngal xoraan ak tudd yàlla am na yeneen xeeti jaamu yàlla sax ni ki bind kaamil mbaa yóbbaal téere xam-xam di ko jàng yooyu yëpp am na tuyaa bu waaye nag yii daal lañ gën a taamu muy julli ak jàngal xoraan ak tudd yàlla watax mu teg ci wayu ko dafa def ne sib laxoo ñeel ko añ yaf xala mu def xayra haadihi salaasati ludul yi le yett ni maac la nga xam ne xoo moom ibaadat ak jaamu yàlla la al istixaal ni ko soxla woo bi ilmi ci xam-xam wa kitaabatil kasiiri ak bind lu bari min alquran yi ci alquran nee na laa nga defa def yeneen jaamu yàlla yu bokktu yemu la wax ni ki yittewoo gëstu xam-xam mbaa bari mbindum alquran yu mel noonu taamuwuñ ko ci booy listikaaf wa an yakkoon ak mu nekk imaaman di ilimaan raatiban buy aji sax daa wax ni sib nañ muy listikaaf ba noppi doon ilimaan di raatib ja loolu nag nee nañu jarul ñu koy jàpp ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam masaa di listikaaf ci jàkka ja ci weeru koor yi moo daa doon ilimaan ja kon nag moom mooy listikaaf mu doon ilimaan di raatib ja kenn sibu ko waaye yar xaa ak bu yéeg xalaa sat xin ci kaw ab terrasse aw manaaret wala ab soroor daañu sib bu yéeg ci kaw sorooru jàkka ja wala ca terrasse ba ngir noddu di sax yéeg foofa ngir lekk daal di wàccaat loolu moom sibuñu ko wa an yu xas ya ak muy jaali aw yu xandi a wala muy ndokkeel maanaam fa mu nekk ci biir jàkka ja mu defa jaal kenn wala mu defa ndokkeel kenn ci xew-xewu yiw sib nañ ko de sax moom bu génnee ne day jaale ji wala bu génne day ndokkeel yi ko am xeeti xew yi mu daal di yàqu la mu defoon daal di yàqu mel ne tey bu fekkoon ne ndeyam ak bàyyam kenn ka daa faatu kon war naa génn jaali ka des di dund te bu génn di jaale ji rek la mu defoon yàqu bi ñee la mu defoon yàqu nag mooy da koy tàmbaliwaat di néewul sax tuyaaba jamono dana ko ñàkk waaye buy def li tikaa ba yàgg am lu ko taxawar a génn te mënta ñàkk faaw day génn rek te bu génnee lam defoon bu dikkee war koo tàmbaliwaat li sax bu fekkoon ne waajuram daa faatu waaye fekkoon na waajur ba ca des moom faatu woon na kon amul ku muy génn di ko jaali loolu ko dewee rek ci litikaafam waaye moom bu fekkee ne yaay waajur yi kenn ko faatu te kenn kaa ngay dund faaw mu war a génn jaali kay dund moom su boobaa bu génnee nag lam defoon faaw mu yàqu mu war koo defaat waan yaxtak fi ak muy listikaaf xayra mag fiin mbir moom du ko ñu doy lool sib nañu muy listikaaf te yóbbaaliwut yam fa yittewoo ci lu muy sol ak lu muy lekk ak lu muy naan ndax loolu day waral rek ak génn te du ko sañ a bañ teewul nag bu fekkee yóbbaale wut yooyu waaye jekku na boppam ba lu mu soxla yor na njëg gi te daal di waaxu jëndee ko fu mu gën a jegee daal di ñëw toogaat ci jàkka ja loolu moom kon du aay waaye nag su fekkee ne day génn di ko lebi mbaa muy di ko yelwaani moom buy génn rek mu yàqu wa yuftahabu def na sopp al ihtikaafu li ihtikaafu ka bi ramadaan ci ramadaan ihtikaf ñu ngi ko gën a soppe ci weeru koor te wayeta ak kadu dana feddaliku bil xasri ci fukk ya al axir yi aji mujj min hu ci ramadaan weeru koor daal ci lañ gën a taamu listikaaf te ci fukki fan yu mujj ya lañ ko gën a taamoo faslun li ab dog la yàbbutulu dana yàqoo al intikaafu listikaaf bi fi'lil kabaa'iri ci def bakkaar yu màgg ya ka zinaani ki njaaloo wa shurbil xamri ak naan sàngara wal kadibi ak fen wal xasfi ak xaste litikaaf moom nee na jaamu yàlla gu sell lay doon goo xam ne ka koy def bu defee benn bakkaar bu mag rek mu daal di yàqu mel ne njaaloo wala naan sàngara wala fen wala xas kenn ci mbirum njaaloo ne ko def nga ko te defu ko muy góor muy jigéen yooyu yëpp day yàq litikaaf ja wa bil jimaahi ak ci booloo ga wa muqaddamaatihi ak yéen ñu jiitalam moom booloo ga maanaam mooy yee jiitu joteeg sowukaay ni ki fóonanteeg laalante ci yaram misaal na ko sax kal xublati ni ki fóon lay leen ci guddi aw naxaaran wala ci bëccëg xalaa wacc fi shahwati ci anamu bànneex des na jàng wa muqaddamaatihi daañu jàng wa muqaddimaatihi daa wax ne ba tey jote góor a jigéen ci sawukaay day yàq listikaaf ja niñ mën ci koor nga xam ne bu jant bi soyee sa diggante fenkuk fajar mën ngaa jote ka muy séylu fekku ci listikaaf listikaaf moom bu kere muy jeex du sañ jotee ka muy séylu boo tegee fee jote ga nag mu des fóonanteeg laalante ci yaram yi demee noonu moom it saa yu ko defee te jublu ca bànneex rek listikaaf ba yàqu bu ko defee nag te jubluwu ca bànneex nag léegi da koo def ngir rek tàggoonteeg moom moo tax ñu fóonante mbaa da ko fóon fóon bu yërmaandi rek waaw kon su boobaa du yàq listikaaf ja waaye bu fekkee ne fóonante ga mbaa laalante ga jubluwoon na ca bànneex moom mu am ko caa bañ ko caa am ñooye moom faaw day yàqu su fekkee ne jubluwu ci woon bànneex waaye far na ci amit ba tey dana yàqu lay tee rek listikaaf ji yàqu mooy fóonante ga ak ya demee noonu jubluwu ci woon bànneex te it amu ca bànneex boo tax faraa bi naa is almadaaru an takoona ala wajhi shahwati bil fi'li aw qasdiha fa in sadarat laaxan qasdin wa wujdanin bal kaanat li wadaaxin aw raxmatin falaa wa bil xayis ak ci mbërëg jigéen juy lixtikaaf bu gisee baax rek na xam ne kon du mën a wéetu ca lixtikaaf ja ndax lixtikaaf moom day ànd ak koor ak jàkka te gis baax muy dereeti mbërëg moom mënta ànd ak koor jigéen ji du mën a nekk ci jàkka kon day génn rek dem këram ba deret ja jeex ba deret ji jeexee nag mu daal di sangu daal di gaaw dirsiwaat ci jàkka ja àggale fan yam doon def ba tey su fekkee dafa tawat tawat joo xam ne mënta ànd ak nekk ci jàkka day génn rek ba tane bu tane ñëwaat àggale fan yam doon def bu fekkoon daa dog mooy dafa juubu rek fàtte ko lekk mbaa mu naan ca koor ga it fekk mu nekk lixtikaaf ba tey moom it du yàqu day fay bis booba rek mooy day jàpp ne bis booba moom bokkul ci yam lixtikaaf bu ay fanam matee bu susale ca booba daal di koy fay borom lixtikaaf ba àgg ci bisub korit mbaa tabaski nga xam ne araam naa woor it bis booba du ko mën a woor kon kenn du ko limaal ci lixtikaaf ja lu mel ne bisub xiit boobu nag mbaa boog tawat dal ko joo xam ne teewu koo mën a nekk jàkk ja ndax amul sobe suy génn ci moom ba dara waaye daal mënta woor yooyu yaar am nañu ne day fa toog ci jàkk ja rek benn yoon ba ngant la dañ bu dee tawat jaa wala bisu yéen ba jàll mu daal di wéy ca lif ci kaafam am ñu ne sañ naa génn nag bu dee tawat jaa ba tawat jëwér mu door a ñëwaat bu dee bisu it baa xañ na sañ naa génn def xeet gi ci bitti bu bis bi jàllee nag mu door a ñëw àggale suñu ne am na ngànt nag ba na génn ba ngànt li dañ mu ñëwaat ci jàkka ji diir boobu mu génne na ormal litikaaf ji mu nekkoon mooy bu fekkee am na ku muy séen bu mu laalanteeg moom ci genn wet bu mu fóonanteeg moom bu mu joteeg moom ci sawukaay na bàyyi noonu rek mel ne ku toll ci listikaaf ba kera ngant li jeex ba mu ñëw ci jàkka ji ba mort li la mu doon listikaaf door a noppi nag door a sañ loola wa bil ak li ak ci lekk wa shurbi ak naan naxaaran ci bëccëg bokk na ci yàq listikaaf mu dog mu dog koor ga te tey ko ci koor ba ci biir rek mu daal lekk tey ko mbaa mu naan tey ko bu fekkee dafa juubu moom wax nan ko léegi juubu mooy fàtte rek lekk mbaa mu naan koor ga du yàqu day fay bis booba rek susale ko ca litikaaf ca mooy bu ay fanam matee rek mu susale ca booba mobil xoroo ji ak ca génn ga dinal masjid yi ci jàkka ja li xayri ma aychatin ngir lu dul ab dund aw li xayri xaajatil insaani wala ngir lu dul aajoy doomi aadama bu fekkee ne ba muy litikaaf dafa yóbbaale wutoon la muy lekk la muy mbaa la muy naan ak la muy yittewoo waaye amee na njëg goo xam ne mi ngi ci poosam nga xam ne saa yittewoo dara rek génn dem jëndi ko daal di ñëwaat loola moom yoon may na ko ko wàññiwul dara soxla si doomi aadama jéem wax itam mooy rek lu munti nekk ci nit mel ne aajowoo dem ca wana wa saw mbaa xayta wala aajowoo sangu janaaba ak lu demee noonu yooyu yëpp wàññiwul dara waaye nag bu génnee ngir wuti ab dund boo xam ne da koy fàggu ji ni ko da koy lebi mbaa da koy yelwaani su boobaa mu yàqu bu fekkee nag waajalu ko woon waaye yor na njëgg ba lu mu ci yittiwoo rek daal di génn yam fa gën a jege jënd ko fa ñëwaat loola kon du wàññi dara waaye nag su fekkee waajalu ko te yoru njëgg nga xam ne bu génnee da koy yelwaanee ka lebaatu moom buy génn rek liftikaa ba yàqu albaabu lii moo di buntu ba assaadisu ba di aji juróom benneel fil xajji ci aj buntub juróom benneel baangoog aju ci aj màkka wax ma moom aj màkka waajibul aji war la fil xumri ca dund ga marratan benn yoon xal xurri ci gor al mukallafi kadi mukallaf al mustatihi kadi aji attan mooy kadi aji man aj màkka bokk na ci ponk lislaam yi farata la waaye nag ci koo xam ne gor la te mukallaf la te mën na ko boole ci bu dee jamono yi jaam amee jaam bu sotti mbaa ku laal ci njaam aj màkka waru ko gone itam aj màkka war gu ko ba keroog muy kàllafe ku mënut itam wàcc na ko du tee nag fekk yu mënut waaye jéem naa togg ay coono ba def itam du tee jaanam wàcc wala yasihu du wër illaa min muslimin ndara ci ab julit ab yéefar dañuy wax ne li yàlla sant doomi aadama yi sant na ko yéefar bi mu ne waaye nag bu dee lu mel ne aj nii moom ak mboolem xeeti jaamu yàlla yi li fekk dugg ci lislaam rek ko defee moom yéefar ba du ko taxa wér ab jullit rek moo mën a aj aj ga wér nga xam ne kon gone bu ajee dana wér ab jaam ndegam jullit la bu ajee aj ga dana wér waaye du du tax nag muy farataam nga xam ne bu dee gone ga bu kàllafee war a ajiwaat ajug farata bu dee jaam ba su goree war a ajiwaat ajug farata ga wala hoo ñeel na ko arbaxatu arkaani ñeenti ponk aj am na ñeenti farata mbaa nga ne ñeenti ponk al awalu bu jëkk ba al ihraamu mooy armal bi zaman ci jamono maxsuus ñu di ñu ràññeel armal bokk na ci faratay aj daa am nag waxtu wuñ ko war a defe am itam béréb buñ koy defee waxoo moom jamono ja shawaalun mooy shawaal weeru korite wa dul xixidati ak weeru diggu tabaski wa dul xijjati ak dul xijja waxtu wa ñuy armal aj mooy su weeru korite teroo rek la ca dale ak weer wa ci topp bi diggu tabaski ak juróom-ñeenti fan yi njëkk ca weeru tabaski ba ci guddi taxaw arafa ga guddi fukkeel ga balaa fajar fenk diggante boobu rek